lu tasaaroo ñu dajaleel la ko lu guddoon ñu gàttal la ko lu xaw a lëndëm ñu leeral la ko nga foog ni dafa yomb fekk dafa jaar ci ay loxo wala dafa mel ni supp chinoise demal restaurant chinois doo jël mukk supp di ko xaw seddal tuuti toujours dafay ñëw rek juste nga mën ko consommer léegi loolu dama koy pour njaay njaay wa laazimu laazima zi tariqi bi daa ينال الربح بالتحقيق بابا كنا بيرو لازم نعين كوكو كنا كن تجلو بير دونا كتجاني لماي أي شرط أمنا بنا بي ماي كلاي ما يردو باي دكتوران إنسيسي نفك مو أبت فور ما يردو مانا مقدم لا بو سنة ما يردو مقدم بو سنة ما يردو ما يكن يكن يارنا يكو بخم لي منا يركي مانا من تفدو دين booy yar nit pour mu daaw oto mu dem ba mën a daaw oto mën nga ko jox oto te yi muy bañ eh, foofu mu nekk mu xaddam ka ko def mu xaddam foofu kookee nekk ku mën a def mu xaddam parce que mën nga nekk mu xaddam buy may wirdu fekk taalube numéro million te du tax nga mun a fal benn mu xaddam ibidingo oɗon order order eyi eɗe so mumamiji kala mo ɗon ɓere tigi koloɗen bon alors léegi kon nag foog ku mën a taqdim mooy taqdim kele taqdim kele taqdim itam kooku taqdim su fekkee ne fukk la waroon a taqdim yem ca comme taqdim numéro onze war تيقول لك خام أي بوا تتجول كوك عبور رد لك بي خام كمو واو جاجب كنا باينا الورد لازم أكبر الأسرار في الطريق أنا الورد لازم دي ويوم بوب كتوني مهم بود بجانا ما تتبقى وتبوي في المريد الصادق لكن المريد الصادق من أقوى man araahu llahu wirda tijaaniya akbar al asra wa cheikh al tijaaniya ayna sirri boo demee ba gëm ba yëg ba mu wóor la ne moo gën a mooy mbóot bi gën a mag ci tariqa bi cheikh yaa nag mooy jëm ñu mbóot moom mu ne doo dem di uti yi tuburaan ñoo xam ne boo leen joxoon ñaan nga war bàyyiwul di caam ab di ñaan dafa binduloo ñu ngi jàng boobu gannaaw suñu jàll boobu la. donc saafara saafara bi tamit bu fekkee dafa gàtt comme xeetu lii yi buñ ko raxasee sax ndox mi du ñuul. mooy la ko ba nga ko dama yëngal ma daal mu ñëw mu ci daal yi ñuulal ko ndox mi ne ko lu ko may du ko gëm dafa ko gëm du ko jëlee ça c'est psychologie psychologie la moom. bon léegi kon wér du laazim te ku bàyyi laazim oyofal ko. leneen ngay gën a bàyyi mais foog ñu wax taalibe yi ndax ci kaset yi day circulé ne wérdo bu faatee dañ koy fay julli bu faatee dañ koy fay julli farata la wérdo naafi la mais yaa ko engagé soo xamee wérdo yu bëri la nga fexe ba fay yu bëri soo ko xamul nga góor góorlu ba pare nag dem ci ku am taqdim mu tëj jiital تجديد مهم معدلات اندسراج الصدالي نعم ما تسبقك دي تبارك سجرام باسكو يفي دو سيريل mooy tëj di eesal damay eeslu fekkee ne nit ku def dara la ci ak càggante eeslu moo ko moom yenn eeslu yi ci des nag eeslu barke bi koy gis ne ko sëñ bees la na baax na donc yonent moo daan wax saaba yi jaddidu imaanakum bi qawli laa ilaha illa allah da leen beesal seen ngëm yàlla ci di wax la ilaha illa dañuy sikar ku nekk yonent bi dama ñu la jiite nga soxla beesal dem yàlla kon waxantuma loolu tëri bila ci taxoo laasim yu naalu lay amee rib tono mooy bénéfice bi taxqiqi ci lu wóoru donc mooy li mu waxoon rek kon mooy mboo jundee képp ku fonk wirdu laasim da am bénéfice su tariqa bi te loolu lu wóoru te ca taxqiiq ak taxaquq nga baal yooyu mbiram xaq xaq taxqiiq taxaquq xaqiiqa affaire la yu bëri ci tasawuf mi ngi tourné di gravité autour de xaq xaqiiqa taxqiiq taxaquq dafa am lu ma ci dal lëkk alhamdulilah dama nekk ak Baye mos naa ko wax sax ci yéen dama nekk Baye Paris nekk ci service am weer ak nangam presque ñaari weer boo xam ne moom moo jublu bañ a annoncé nekkam Paris

may jàng diwaan yi mu naan ma woy wi barab sàngam laa ko defee woy wi bu njëkk lii la woon mais lii la ah léegi nag ma woy wala woy boppam sax moom daf ko commencé woy rek Lamine ngay ñëw di campagne pour nekk député mu stagane ma ne keroog woy boobu mu tombé la xam ne mooy gagné mu gagné alors nag ma yoon nag benn bi tamit bàyyi daa ma daal ñëwoon gërëm la xam nga koy bett mu ne maa lan la ma ne ko ah ma daal damaa yëg tax xiyaat daal damaa yëg ni daal maa ngi yëg daal yëg yow daal maa ngi mu ne ma dee loolu la ñu dig xam nga mu ne maa éegoo musiba mu ne dee romb de tudd loolu kooku ziyaadatu taxaqquq kon nag taraqi taxaqquq plus de taxaqquq taxaqquq plus mu ne ma li plus loolu yow wi jële day jàngale bosom may taxaw ci xam yi mooy mooy le le sel des cours quoi je me donne de ce que personne n'a non non non non non alors mun a xam nga lu tax li nga yëg ba léegi mu ne ma li nga fi wéete sax waaw mu ne ma mën nga cee déggee sax ne doomi yuusufa yi doomi yàquba yi ba ñuy fexeel yuusufa maanaam du mbon dañuy foogoon ne pegg yu suxal fa duñ jot ci seen bàyyi maanaam duñ am ngay jii nga ñu euh, mu wax ci yaatu kon nag euh, wéet bi wax na ba muy sanc institut ba tudd mag ñu bëri ba ne ñooñu ñëpp bi ma leen di yar boobu dam am naa jot hmm parce que jot cër mais nag waxtu yu baa ñàkkee jot bu doon keneen du defati dara mais nag dafa barkeel waxtoo may ko saa nga seetlu ko une organisation de son temps ñu bëri xamuñu waaw yàlla nag barkeel tam tam muy liggéey lu kenn fekkee ko boo rek ci mu naan ma fanaan di ki di di sàmm bidiw yi waxi arab fanaan sàmm bidiw xam nga ne ba même voyage bobu borom ruuxul adab ma selu ne duy nelaw parce que dañu dend ni pour la première fois ba ngi A ma ngi B ma gis ne duy nelaw ma xëy nag mais suba ma daal daal dëgg dëgg am ngi bàyyi ay bàyyi dafa ubbe ko xam nga laaj ko du sax duy nelaw ne rek na rek ah am naa sama ne rek jaaxal na rek ma ne ko tigi même <laughs> même ma réaction n'est pas normale. tuuti <laughs> mën na waa foofu la wax ju rëy mën na waa xam nga loolu moom ci sama njëlbeen nag mbit la ma daloon ndax li ma bëggoon a dugal ci jamono daf cee xaju voilà gurum mooy calaa mii nii guddi gu ma nelaw ñaari waxtu rek mu doy boo koy teel a moom day tiit quoi nii. kon nag yooyu yëpp dafa tax def na ci yow même ba amul def itam terewul ci na li mu def nee naa ko bàyyi bi nopp yenn fii dem nañ Louvlaan yenn foofu ngoon jot ñëw nañ war a continuer dem fa doo nepp lu mu ne ma baraam nañ dem tukki tukkee koy jeexal tukki moomee programme di dix point fekk appliqué woo dala neex tukki tukkee koy jeexal nañ dem mu ne kon nag laazim fonk wasifa ni nga gàddoo laazim noonu nga gàddoo wasifa sa engagement la bu la rawee itam koy fay si kër sa ajuma rek lañ la waxul fay waaye moom itam boo amul boo amee mbooloo la boo amul mbooloo bu la neexee mun nga def si ko yow kenn entre huit cent huit cent mille ba mille six cent maximum ndax dañuy natt rek waxtu bi des ci ajuma kon nag ba muy commencé di wax tariqa tijaan yi il faut mu wax yi léegi nag am war nañ am bés dërs boo xam ne da ngay jukki un deux trois quatre cinq ba ca nangam ci teggiinu tariqa bi ci charte kamaan ndax ñaari charte am charte sixat yi mooy bi nga xam ne moom bu amul tariqa bi nekkoo ci chartul kamaan nag mooy charte yi tax mu mat am perfection yooyu mënuloo ko borfan parce que yëpp ay kii donc léegi euh, wérdo dafa am fiq ni jàng jullee yooyu amee fiq dafa war a nekk as ndaw si xam nu ñuy jàngee wérdo par exemple tey ci mun naa ci mosal nii rek euh, boo jax-jaxalee ci julli da ngay sujjóot baax da wala wala wala qabla euh, jax-jaxal ci wérdo bu mun di doon xam nga luy sujjóotam boo paree rek nga wax téeméeri astaghfirullah yëpp rentré dans l'ordre téere bi ñuy jàngee fi ko tarixa nag bi ci gën a siiw mooy mooy muniyatul murid waaye am na shahdatul jaani am na yeneen fii ci nekk réew mu ne fa lasta fi axdi tariqi tarbaxu illa ida kunta dawaman waa ji maas taslaxu mais tusle tusle fa lasta déet yow tarbahu ngay texe ngay tonokon ngay bénéficier fi aksi tariqa ci jàpp gi nga jàppoon tariqa bi illa ida kunta lu moy soo nekkee tuslihu di yëwénal mbir ma nañ la ko waxee woon dawaaman ci lu sax la du defar tey bàyyi ëllëg waaw il faut da nga koy def correctement am na ñu ne kenn du wér doo di dox non mën nga ko te fekk du yaa ko taamu situation bu ko laajee da ngay كان يدو تد انكاي نكدون واخ صاح تي جيو بو خاني باي فكي نكو موي واخ واخ سي اديس يويو نان غا يدو واخ موغاي تد نو غا تد خمغ ليكو كوفرير موي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم القران كان نان غاي سيكر تخاو نيغاي سيكر توك نيغاي سيكر سو تد واي نك لوشي نك دا فا وار ام كورس tarapus la da nga fekk kii jàngale wirdu moom ne kuy wirdu du wax mais bu carapace moom bu gisee ab danger boo xam ne moom rek ma ko lii foog mu wax su ko yaay fooyee foog mu tontu bu ko bàyyi fooyee foog mu tontu bu ko sëriñi fooyee foog mu tontu waaye waxuñ na rek

mu ne ko suma booy bii nga xam ne maa koy it man rek la fonk euh, su ma su su xasee di wirdu su ma ko ooyee lu ma ko sant dina ko def mais wax ak man <laughs> booy bi dafa rek <laughs> da ngay koy kii waaw bon mu ne ko ñaari gis naa ne fu ngeen am na waxtu woo xam ne fu ngeen nekk rek fu ngeen daje di di di ñaan seen borom حتمه ولست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تصلح دواما walifa moom la ñu wax ne ci jàngalee cosaan yi boo duggee ci oto wala luy déplacé boo eggee ci jëw karam bul ko jàng jàngal vingt salatul fatiha lu mu nekk lu mu mën di doon même bu dee avion avion am na confort mais affaire ruuxaani da ngay tënku rek am na sa ñaan bu yonent bi jàngal saaba yi saab bi di ko répété kenn di ko répété amantu bi kitaabika alladi anzalta wa bi nabiyika alladi arsalta loolu yonent waaye dina amantu bi kitaabika alladi anzalta wa bi nabiyi wa bi rasulika alladi arsalta yonente bi nabi yi que ne di arsalta kooku moom jàpp ne bi rasul yi que ne di arsalta yonente ko déedéet waxal li ma wax c'est yonente bi nga maanaam nëb ci biir et mais nag mbiru mbirum topp la te naal yu nee na bu doon suma xel mi rek la su ma demee bay masaa bot yi may sol te may nañ ma ko ci suuf laay masaa ndax moom moo tax suuf waaye ci kaw lañ ma ko masaa te li ñu ma wax rek lay def ولست في أقصد الطريق تربح ولاياك تماما تصلح قصدك دائرة الولاية نفهم رقي وخمنة ما نام بيرو مغنى رقي وخمنة ما نام مم مم يو بوكوغو بوكوغو ستوري جيس لجنة ما فك كتوك أم كوي بسر باي ماي كي جانجلي بسون دمو ديكو بسر تانكامي avec un mouvement pour moi बाए बबूम हॉस्पिटल बबू लॻो बबू साहिब लिखो लेकिन मैक्ट्री भई थी वञे कोई टियो डोई पंखो bëgg cee tojoo bay islaax nan la mu kammilan shurutahul muqarrara charte yi ñu wax ne ku ko bàyyi nekkatoo tijaan nga respecté ko mottali ko charte kamaal yi loo ci mun nga def ko soo mënee wér di teewlu yi mu la wax koo xam ne jàng nga teewlu baat yi bàyyi nee na teewlu bi ñuy wax yëpp ci julli ak zikr jubluwuñ ci lu may boo mané langue bi ngay teewlu baat yi ngay wax mais pas li ñu wax ni nga teewlu julli taxaw jàpp ne aljanna ci sa ndeyjoor sa faran ci sa càmmooñ siraatan ci sa kanam ba kii naan maa ngi fas yéene julli tusubaar bésu alxames eh, ci ci deux heures et demi ak eh, quinze minutes noonu jóg rek di julli ji mooy yéene bi sax jóg di xëdd rek mooy yéene quoi ndax yéene mooy jublu niyatu al qasd مكملا بمغي أجي مرتلي شروطه شرط المقررة يدي وين سخل بو لا تي جوكلي أي شرط بو بو فوق مقرر بو لو لي دي شرط اوتانتي اي تي كي نك نك من عرفة دي أي بن واي يو Dakar waa خمنا بيو مي mais jàngul خمنا na لا تي ديك مو mu كو ارمال دو du ma dee sol bi Mariama Niass man boobu mi ngi boot bu sëy Mariama Niass e, jox ma téere bi yow ji laaj ma ne kii kii Mariama Niass mu kambiral shurutahul muqarrara donc nit ñi dañuy dugal yu ci bopp charte muqarrar mooy yi nga xam ne am nañ authenticité mukaabidan aadaabahul mu'tabara mukaabidan mbir mu ngay aji jànkuwante liñ ko firi ñu ci daal maanaam nga di ko sonnee ko tu fais un effort pour teggiin ni la wax nga xam tegi teggiin mu'tabara yuñ xaram la nga déggee ci ne am na teggiin yuñ la boo imposé xeyru mu'tabara dafay am toujours loolu fi mu ne nii am na teggin yoo xam ne ñaaw boo ko defalee sa sëriñ te am ca pas-pas mais nag du tarbiya bàyyi bàyyi du raamloo taal bi jamais mosuma ko gis waaye nag xam nga nekk yaa xam na ngay defaree sa forme taal naa sax ba ko jaree on a kenn ci yi ci taalibe yi doomu taalibe yi mag yi naa mu mu gaawante su mi dàllam pour dugg ci ne mën a ko de ma ne ko dugal ak sa dàll yi c'était pour wax ko mu dem doxi soxla ñëpp ngi dugg ci ne bi dina pàjj kii sumi dàll ban heure kilo kon nag lu nekk ak kile muaddiman waaw kon nag teg yi ñi nga xam ne daal mu'tabar xam nga Maroc am nañ seen benn jargon la hada mu'tabar boo boo indiwoon benn kii benn objet benn produit bu kii hada mu'tabar maanaam kii c'est kii mu am solo دفهم آداب معتبرة آداب غير معتبرة معظما لأهله جميعا فرغ منو دنكي بولي بنين جيكو موي كيب كو بوك سي تاريخ بي نغا ماغر معظما بير مو غي ادي ماغر لأهله نير وا تاريخ بي جميعا يوم نيب نك باسكو كي نصو دنكي واي شيخ مجلج سيد الوجود نيناكو فقراءك فقرائي وأصحابك أصحابي تتعلم بيس ويتعلم بيس ني عندك يوم من لي عندك وخلال نبني لوران تندق بني لوران تندق ماي لور نبي أولاد المؤمنين من أنفسهم معظما لي جميعا لا سيما الخاصة rawatina nak ñi nga xamne ñoy kilifé ñi nga xamne bokkuñ ci commun talibé mais ay khas lañ ñooñu nu may def mu ne ku nekkan mutiyaan di aji top seen digal bu ñu digal mbokk taalibe magal ko kilifa bu xaddam kilifa tariqa bi toppal ndigalam kon mutiyaan atiu llah wa atiu rasula wa ulil amri minkum yoon yàlla ko ku yàlla waxee defal ku yonent waxee defal ñi amee mbiru diine ci seen biir bokk ci yéen ñoom itam bu ñu waxee defal mais léegi nag bon nañ teg ñaari bayt yi parce que léegi xam nga ne wirdo lu rëy la xam na ko booba léegi nag yaa ngi bëgg wirdo mu ne ida charata fi dikaari wirdi fa laazimi l adab qadra lahadi ida charata ndem tàbbi nga la ñëw commencé nga boo duggee fi dikaari wirdi ci sikkar wirdo bi it dakara ak zakara ñoo bokk maanaam dakara baada ummatin ay tadakkara baada muddatin boo boo commencé wérdu nag audu billahi min shaitan rajim fa lazim saxool taxool a adab ba yar ci sa mouvement ak sa attitude xadaral xaddi dayob la nga mën buñ nañ xam ne daal yaa ngi ci lu lu lu lu am solo gis naa benn benn law bi bu nekkoon kawara nekk coiffeur mais il faut nga gis ko buy dem xadra kër si Ousmane Kane yooyu bu solee lam am ba jël kaar xol gi ba xolu ko ba dafa mel aljana bi yow la koy geesu ndax da am ku mel ni man فلازم الادب قدر حد تادب في ظاهر وباطن به يرقى المرء عمل يار نغ نعم من معنا ودك تي القران ولا السنه نغ نعم من رك ماي معنا نغ نعم من لب بوكو دك رك نغ ودفل نغ من رك دفل نغ من لب لا يكلف الله نفسا الا وسعها معنا نغ في ربا يلا لو تقول لو منو تقول yàlla toggul la lu may loo xam ne mën nga ko lim la togg mën nga ko war nga koo mën loolu lay firi dan waaye dafa taxaw ànd ak taalibe bu muy tarbiya Mubaarak Cheikh Mubaarak Cheikh Dabakh ñu dem ci mel daa dem sànd nga taxaw rek mun ne ko laana mun ko taxaw rek dañuy jàng ban ban way yelwaan ngi fi am waa joo xam ne benn jant man ñëw ñëw ba ci ki yelwaan mu ngi amee gafaka maanaam daal kattan di lëñ lëñ di seet di seet di seet lu yàgg sëriñ bi nekk ki muy tarbiya xam nga waaj lu muy wut mu ne ko poids bi muy peese fa yàlla lay seet ci suuf waaye ak bubbam bi mu rafet rafet mu ne ko daaneel lay peese fa yàlla lan tanaalul birra mbaam si bopp si ida qarata fi jikaari lwirdi fa lazim al adab ak qadre al xaddi ay kull al qadri te addubun mooy lan teggiinu fii zahirin ci lu feeñ wa batinin ak ci lu nëbb nga ne ko ah mu ne bihi ci yaru ci lu nëbboog lu feeñ yaru ci kanam nit ñi yaru bu fa kenn nekkul comme yaa ngiy wirdo bihi ci jikko jooju ci soobu boobu yu raqaale yi éegalee almaa u nit parce que am la ñuy wax ñun ci daara ja lil ma wax ni ca barab ya muy uti ca kaw teggin rek ci la taalu bi yéegee teggin rek nit ñaar ñett ñeent juróom juróom juróom juróom fukki bay tengu ñeem foofu hmm? waaw di jële bopp wastaxdiranna cheyxatan murabbi kadaka cheyxahu bi duni rey nag soo ko mënee istahdiran teewlul bu baax maanaam defal effort ndax waxul istahdir istahdiran la baat bu yokk ci wax yaaram rek xam ne maanaam bu yokk istahdir teewlul istahdiran waaye teewlul cheikh sa sëriñ bi al murabbi bi aji yar bi lay yar donc dès le départ Baye mënul dissocier diggante sëriñ bu la may wérdo ak nécessité mu nekk ki lay tarbi barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan